léegi li des ci jotaay bi daanaka bëreetul ma euh, Madiakhate xanaa ñu bàyyi la nga wéy ak euh, sa agenda du week-end euh, ak li nga xam ne nemmeeku nañ ko démb ci wàllu tàggat yaram. Mhm. te ñu gis ni teg nañu xeer bu njëkk bi nag di waajal man stade du Sénégal bi moom ma ci neex parce que ni may déggee stade de France. Mhm. ah nañu fexe nag ba buñ fa concert dañ bàyyi gars football <laughs> gars football ci ñàkk. <laughs> du Sénégal posé nañu xeer bu njëkk bi. Mhm. toftal ci président ne candidat lañu ci Coupe d'Afrique. Euh, bu deux mille vingt bëgg na ñu organiser Coupe d'Afrique en fii ak quatre ans euh, am na Coupe d'Afrique yoo xam ne joxe nañu ko euh, bu deux mille vingt trois bi su ma juumut président peut-être dafa amul information yaakaar naa joxe nañu ko. Mhm. peut-être ba ca topp parce que maître Augustin Senghor après ci journaliste yi ak journaliste yi bañ ko laajee wax na lool nee na budul. fii ak 4 ans it ba ca toppaat Sénégal dana mën a bëgg postuler ngir mën kaa organiser euh, ak lu mu ci mën a doon Sénégal moom ak stade euh, du Sénégal bi stade Léopold Sédar Senghor bi ñuy defaraat teg ko ci norme internationales yi stade Demba Diop bi nga xam ne dinañ ko defaraat ak euh, stade régionaux yi Sénégal taxaw mu ngi ci yoonu war a mën a organiser waat Coupe d'Afrique ginnaaw ba mu ko mujjee woon organiser en 92. Euh, boobu ñoom Fall fekkee woon nañu ko xëy na ñun ay xale yu ndaw lañ woon dañ doon doog a juddu euh, te bëgg nañ nag fekkee loolu nga xam ne fekkee wuñu ko woon mu doon loo xam ne euh, lu lu am solo la te on espère que dina concrétiser wu ndaxte Sénégal première nation mondiale démb classement FIFA bu mois bi génnaat na Sénégal mu ngi ci kaw ba léegi ba léegi amaguñu stade norme internationale quand même loo xam ne la war nañ ci indi saafara te am nañu yaakaar ne stade du Sénégal bi bu jeexee dina doon solution bu. Euh, solution ngir Sénégal mën a régler euh, problème boobu nga xam ne am nañ ko ci wàllu infrastructure Modou Fall boo amuloo ci yokk ma woyal programme bi. Uh-huh, uh-huh. Modou Fall. Euh, teg nañu xeer bu njëkk bi stade du Sénégal moom daanaka lu ñëpp doon xaar la Sénégal dina ko am fekki jëmi jamono. waaw incha allah président wax na ko nee xëy na fekk fukki weer ak juróom-ñaar ñoo am suñu wala sax lu ko xaw ëpp ñoo am li nga xam te nag moo di suñu stade mu nekk stade Sénégal quand même nekk stade olympique. boo xamante ni li muy li muy li muy li muy dajale lu muy ŋànk ci biiram dafay bëri loolee Kalzu kon euh, du ñu mën lu dul lu ko euh, sant ci yàlla euh, bu ñu dundee kon ba fekkee fi Sénégal di amee yenn ambition yu ngande yi ñu am stade yoo xamante ni nee nañ day xaw a méngoog ba ne Moscou mhm. loolee lañ daan seen ci télé yi ñu mën ko am suñu réew mhm. kon lu am solo la féliciter quand même président de la République Euh, ci xëy na euh, li nga xam te ni euh, teg na ko. Mhm. te nag deux mille vingt trois wala deux mille vingt cinq. Mhm. c'est selon. Mhm. yàlla na yàlla def Sénégal organiser Coupe d'Afrique wax nga ko benn yoon lañ ko organiser muy quatre vingt douze. quatre vingt douze am na génération yu bëri yu ñu ko fekkeewul ñaari stade la amoon muy Léopold Sédar Senghor ak Aline Sitoé Diatta ñoom ñoo nekkoon ci ci normes yi. mu nekkoon seize équipes. léegi Coupe d'Afrique su ma juumul vingt quatre équipes la. kon tey bu ñu amee juróom-benni benn stade foog ñu am ko. pour mën ko organiser. yàlla yàlla def loolu balaa mhm. bu ko defee nag ñu mën a kon amal Coupe d'Afrique. Mhm. xale bi nga wax ni moom nga doon. Mhm. nga mën ko fekk dund ko. ndax ñun jotoon nañ ko dund ba ñuy defar pont 92. tout à mhm. muy lu am solo xanaa ñu ñu dugg léegi ci agenda bi. Mhm. agenda bi euh, fàttali ne compétition yi ci ca Diamniadio ba tey muy euh, tournoi de qualification olympique boxe yi euh, daañu ko wëyal dina dem fii ba le 29 février bi ñu nekk démb nag athlètes yu Séné boxeurs sénégalais yi ñaar ñi ci bokkoon kenn ki dañu ko mujjeewul amal combat parce que dañu ko disqualifié ndax problème mu këyit ka ca des dañu ko mujjee gagné mooy kii nga xam ne États-Unis tey danañ ko eggali ak yeneen boxeurs yi Sénégal nag objectif am mooy fexe au moins mu am ñaar jàpp ñett euh, qualification ngir mën a bokk ci Jeux olympiques yu Tokyo 2020 yi lu mooy loolu tournoi UFOA U20 euh, euh, ci nga xam ne ñu ngi koy tournoi plutôt Coupe Asie U20 euh, euh, bi nga xam ne mu ngi am Sénégal dañ ko ci invité euh, tey dinañ jouer seen ñaareelu jongante si seen poule poule D bi Sénégal dina daje ak Soudan bu 11h45 jotee ci kanam tuuti ci deuxième matcham fàttali ne Sénégal première journée bi dafa amoon na match nul ba tey ci biir programme bi Ligue 1 daañu amal ay jongante ci weekend bi ay match yu am solo bokk na ca génération foot champion à titre ak Tëngéej FC mi nga xam ne jamono ji moo jiitoo ci classement bi. yi mu doon match boo xam ne dinañ ko bàyyi xel bu baax a baax ci euh, weekend bi ci Ligue 1 bu Sénégal euh, lu ko mooy euh, ci Europe aussi dina am ay jongante yu am solo ci weekend bi ca Espagne vingt-cinquième journée bu Liga FC Barcelone ci samedi gi dina recevoir Eibar ci samedi gi ba tey Real Madrid dina dem ca Levante loolu ci samedi gi lay doon Premier League bu Angleterre aussi dinañ amal ay jongante ëllëg ci samedi gi midi 30 Chelsea dina dalal Tottenham retour Mourinho ca ca Chelsea Manchester City moom dina dem fekki Leicester euh, ca euh, samedi gi ba tey euh, dimanche Manchester United dina dalal Watford bu Ismaïla Sarr Liverpool bu Sadio Mané moom lundi lay joué digganteem ak West Ham ca Italie tey jongante bu njëkk bi diggante Naples bu Kalidou Koulibaly la ak Brescia Naples mooy dem fekki Brescia ca dëkkam ëllëg ci samedi gi Spal dina recevoir Juventus Turin dimanche Genoa dina recevoir Lazio Rome mi nekk deuxième position bi enfin Inter Milan ak euh, Sampdoria loolu euh, dimanche lay euh, doon ca Bundesliga ñoom it daañu amal ay jongante na tey lay joué à 19h30 digganteem ak Paderborn ëllëg Werder Bremen euh, dina recevoir euh, Borussia Dortmund euh, Schalke 04 dina daje ak Leipzig loolu samedi lay doon enfin en Ligue un bu France tey dina am ñaari match yu koy tàmbali muy Nice Brest ak Metz bi ñu dalal Lyon ëllëg Marseille deuxième dina recevoir Nantes enfin Paris Saint-Germain dina dalal Bordeaux niki dimanche 20h loolu mooy. li ñu mën a jàpp ci euh, programme agenda weekend bi ci wàllum tàggat moo xam football la mais également du ñu fàtte les finales euh, coupe euh, championnat rugby petite catégorie également dina am ci weekend bi. Mm-hmm. mu doon donc round up bi nga xam ne am nañ ko ci weekend bi ay compétition yu am solo dina am ci wàllum football wàllum basketball également championnat bi deuxième journée bi. entre autres voilà donc bëri na weekend dina riche la septième édition de la nuit du tatami ak sensei Yarmalo également samedi incha allah lay doon fii ci Dakar ci eh, théâtre national Daniel Sorano boobu. également man sama koñ aussi am na benn match. match waaw. waaw dimanche bi match bi ma doon wax noonu. non non non bii grand contre petit la. ah grand contre grand contre petit ah, yow di nga. yaa ngi ci kaay ñan yi hmm? man yow foo ma jógul dugal bi dañuy waxtaan rek honnêtement foo yi paa yi. waaw am na lu ma fekkee nag ci réew mi. waaw ah, loolu am na. voilà ah, moo tax moo tax bu ngeen grand contre petit man xam naa ni bokkoo ji. d'accord yow doo mën a bokk ci match bi. da ngay arbitré. non man maa nekk arbitre touche bi. kal bu fàtte yaay ar a bokk ci gars yi moom moom Marakana lay day dem bokk <laughs> Marakana mais maa ngi moom may bokk Marakana <laughs> et ñu jël